awoo ci suba nekk tiis nag bu mag euh, ci rek xadara bile jàppe na nag moom mee ci atum 2017 la utu Serigne Moustapha ci xilaafa gi ginnaaw juróomi daat nag ba mu ko liggéey waam solo daat na ko ci def bokk na ci itam woote ak jàmm jàpp ne jàmm daal daxa gënu ko ci réew mi waaye itam jàngale bu baax a baax li nga xam ne Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam daan na koy digle euh, ci li nga xam ne rek ñoo nekk ci euh, diine lislaam liggéey wu mag mag atama tolloon ci euh, ñetti fukki at xibaar gu dal na ci umma islamique bi xale général bu Pire Serigne Mansour Cissé moo làqu ci talaata ji ci Ndakaaru ginnaaw ba ab wopp bu yàgg daal di koy tëral kilifa gi yóbbu woon nañ ko sax ci diwaanu France ngir faj ko ba mu ñibbisee nag daanaka yàggul dara ci la ñàkk bakkanama ci bànqaasu fajukaay féetewoo ci Ndakaaru atum 2017 Serigne Mansour Cissé ci la utu Serigne Moustapha Cissé ci xilaafa gi mbëggeel wi nga xam ne am na ko ci lislaam am ko ci diine waaye itam am ko ci tarixe tijaan nekk na lu kenn dum natable liggéey wu am solo nag mu def ko ci diwaanu piir moo xam ci wàllu wu nekk waaye nag ci wàllum diine gi yàgg soñu taalibe yi ngir rek ñu topp njàngaleeg sangu ko tedd ki Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ngir nag ñu tàggat seen bopp nekk ci yoon wu jub bi nga xam ne moom lay sàkku ci bépp jullit. la paix la paix la paix. waxoon naa gàmmu gi nu mujje gàmmu ni leen essence ak pétrole ak jamaa ak or du paix jàmm salaam mooy paix mm-hmm. yal na nu ko yàlla defal denc nañ ko ci diwaanu Pire bërëb boobee nga xam ne mu ngi féetewoo ci département bu Tivaouane kenn naatablewul dayo wi nga xam ne ni am na ko ci tarixa bilee kilifa diine bi nag jeexal na mission ginnaaw ba mu amee juróom ak juróom benn des tamit du ñu ñàkk kilifa gu mag a mag ci wàllum diine gile ak Mariama Bees daanaka ñëwaat na ci dundam ak li nga xam ne daan na ko cee def dañuy teewlu ay kàddoom. sëñ Mansour Cissé doon doom ci sunu waajur góor gi Amath Cissé Pire eh, moom moo fi toogoon ci place mag ñi bi fi sëñ Moustapha Cissé jóge ñu def ko muy xalifa tafsir Abdou Cissé mu nekk nag nit koo xam ni euh, nit ku yaatu woon la nit ku laa biir nit ku oyofoon wàcce boppam ndax euh, maa ngi fàttaliku bi sëñ Moustapha Cissé génne àdduna keroog réunion bi nu njëkk a def sunu benn jarbaat ma dikk njaay def ni ko nag euh, nijaay dama bëgg nga xam ni léegi dootoo soor léegi yaay Serigne Mansour xalifa Tafsir Abdou Cissé ni ko sa col yu oyof yi ngay sol ak euh, néewal da nga koy bàyyi waaw su gàmmu jotatee nga nga nga sañse ba nu xam ne yow yaay xalifa Tafsir Abdou Cissé pour wal na ni parce que moom mësul gëm affaireu Serigne li mu gëmoon mooy liggéey daan dooleem entrepreneur la woon mi ngi fu nekk yàlla defaloon ko it mu am euh, jàmm ak këru diine yëpp. ay waxtu yu néew moo des ngir ñu màggal guddi sangu sang yi Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam alarba gi ci guddi jàppale nag ngir waajtaay goge tax na ba daje wu yaatu yaatu ñëwaat ci li nga xam ne rek moo di jaar jaaru Seydi Hadji Malick Sy fi nga xam ne rek dem na fa bokk na ci ci diwaanu Tivaouane daanaka juróom fukki kilomètre rek moo dox ci seen digg foofee mu def fa juróom-ñaari at waaye doot fa tàggat ay muxaddam yu bare bari ma tax baax yi ñand doon gox yi njëkk yi nga xam ne Seydi Hadji Malick si foofu la tàmbale mission ki nga xam ne moo taxawal gàmmu foofu la tase ak ñu bëri ci ay muxaddamam ci bi ñuy màggal jundub yonente bi Cellule Zawiya ya amal na benn symposium ngir dellu ci waat ci dundu Seydi Hadji malik Sy ak ci boobu la gox mu jóge Ndar ñëw Njaarnde comme ni ma ko waxee léegi mille cent vers 1891 ñëw euh, samp fa école boo xamante ni université boo xam ne mën nañuy wax ni université populaire la parce que tey foo nekk foo dem ci réew mi daan nga fa fekk muqaddam boo xam ni moo ko yor yar ko jàngal ko ba mel ni moom mu samp ko ci gox boobu boobule muy tasaare diine lislaam di yar nit ñi di leen euh, liggéeyloo di ñu koy dundee. ñand doon na pàcc bu am solo lool ci dundu di Xaaji Malick si ci vingt 722 muxadam yi nga xam ne moom moo leen formé ñu ci yi ci gox boobu la ñu bàyyeekoo. Maodo am na vingt 722 muxadam yoo xam ne boo xoolee ci àdduna bi Sénégal ñenn ñi fa la nekk mais ñi ci ëpp. kon nde mooy base bi nga xam ne fa la Seydi Xaaji Malick defaree muxadam yi bi mu paree na wóolu leen. moo tax fa la leen yóbbee dafa leen taskiya ba ñu am taskiyatu nafsi ba noppi ba xam ne moom nañ seen bakkan moom nañ seen jikko alaaji Maalik def ci ñoom xam tasaare leen ca àdduna bi fa la góor yu mag ñu yàlla ñi ñoom góor gi euh, tabaarakallahu euh, sëñ Haadi Touré dégg ngeen ko léegi euh, góor gi macha allah ñoo a alxaja rawaan ngoom ña nga fa woon góor ga nekkoon ca ngumba góor gi Alioune Ba te ñooñu la bokkoon gannaaw ba mu jógee Saint-Louis kii taxawal gàmmu dund na juróom-ñaari at ci gox boobu nga xam ne mu ngi sori ak Tiwaawan ci cinquante kilomètres gannaaw jaar-jaaram ci ñande ci la ñëw installé ci Tiwaawan ci atum 1897. egsi ci nataaluk bés bi ñu dagleel ko Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin di nag doom di Seydi Aboubacar si xalifu njëkk bu Seydil Hadji Malick Sy moom Serigne Abdoul Aziz Sy nag Al Amin daanaka mooy roon ak kaddu kër Maodo lu tolloo ko juróom fukki at liggéey wu am solo nag mu daal di ko ci def nekkoon ku ñu wóolu dëgg ci tarixa bile jàppale na nag moom mais juróom benn weer kottu la def ci xilaafe gi ginnaaw ba mu uttoo magam ja di Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum moom Serigne Abdoul Aziz Al liggéey wu am solo nag def na ko ci tarixa bi buggoon itam ñu fonk ko bu baax a baax ak itam njàngale li nga xam ne ma Cheikh Ahmada Tidiane nga sàkk na ko ci bépp talibé Tidiane dañ ci ànd ak Momar Cissé mu nekkoon ab jàngalekat daan éduqué ndaw ñi sëriñ Abdou ay Sy Al Amine ki nga xam ne kat moo di baayam sëriñ Babacar si moom da ko teeloon jël teg ko ci wetam ginnaaw ba mu fàttoo sëriñ Abdou Aziz Sy Dabakh moom ci boppam moo ko nommé woon officiellement porte parole maanaam ki nga xam ne mooy baatu kër gi ba tax na poste boobu nag dañ koo gën a confirmer ki nga xam ne mooy Serigne Mansour si ak Mame Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al ma moom la ko soxaloon mooy ki nga dimbali ki nga xam ne kat moo nekk ci wetam moom la soxaloon mooy dimbali nit comité islamique yu bëri ci la bokkoon Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine nekkoon membre ci kuréel yu bëree bëri yi nga xam ne day liggéey ci wàllum islam génnam àdduna nag bett ñu bëri ndax ñu bëri dañoo amoon pastee fukk di ko déglu ndax ñu bëri dañu habitué woon ci baatam ak ci takkandeeram juróom benn weer la toog ci xilaafa gi sëñ Abdou Aziz Sy Al Amine moom moo nekkoon xalif général de Tidiane ginnaaw laxoog Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum liggéeyam yëpp dundam yëpp da ko daal di jagleel tarixa Tidiane waaye li nga xam ne tamit liggéeyam mooy ku déggu ak ku nga xam ni ku tey la ba tax na kat daan dimbali nit fexe ba daal di dajale askan wi bañ rek féewaloo am loolu gis nañ ne régulateur social pire la woon li nga xam ne tamit moo gënoon rafet di diggante famille si ak yeneen kër diine yi mooy gën di ratax ñàngaleem ma benn la woon na di fësal liggéeyu maam El Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu gàmmu Tiwaawoon nag nekk waxtu woo xam ne marchand ambulant yi dañuy bawoo fu ne ci Sénégal daw wutal si Tiwaawoon ngir dàq seen wërsëg ñoom ñee nag daanaka indi nañ seen i bagage ba tàmbali nañoo jaay daanaka gis nañ seen bopp bu ñu sukkandikoo rek ci li nga xam ne xam ne nañ ko ak suñu ndaw waaye nag ñoom ñee nee nañ daal du ñàkk nag kenn saa yi ñu jànkoonteel ay jaf jafe marché bu tas ba féete ca Tivaouane dina dalal ay commerçant yu bëri saa boo xam ne gàmmu jot na mu doon xew-xew boo xam ne nag dina tax yooyu les commerçant mën a doxal seen njaay. non Thiès lañ jógee ñëw jaay si fi non fii moom bu dul gàmm duñ fi jaasee nii ñun gàmm ba gàmm lañ fi ñëw wala événement ba événement. ay jóge ba Pikine waaw ah, événement ba événement gàmm gi xam nga fii affaire yi day yëngu ah gàmm la ñuy ñëw xam nga yi day yëngu daal. lii nag du lu bees ci lu Tall moom mi lee tàmm na di wër ci marché yi. waaw marché ba may topp marché luuma yi rek ay marché jaxaay ay Kër Masar ay marché dimanche samedi buun yooyu yëpp dañ koy topp. mu doon activité boo xam ne bëri na itam ay jafe-jafe Ibrahima Touré jóge sa Kër Masar di ñu nettali. coono yi moom bëri na ndaxte paas bi day seer pour nga jël oto mu indi la fii du yomb quoi ñaareel ba bagage yi xam nga client yi duñ fay prix yu normal xam dañuy yàpp ne lépp wanteer la ko mais mënoo ñàkk a wàññi prix ndaxte yaa ngi dégg fi jamono toll la. ak lu ci mënti am rek yooyu les commercant ñu ngi ciy gis seen bopp bu baax. waaw dinañ ci génn moom macha allah wax dëgg yàlla dinañ ci génn moom wax dëgg yàlla. gisoo lalaguñ sax gisoo yaa ngi gën a xam ñëw xam na mais jaay dëgg suba la jour gàmm ak mooy loolu lendemain. commerçant yi nga xam ne nag ñoom ñoo féete ci dëkk ba xew-xew bi dina tax ñu diisal la seenub gafa. am na différence bu baax a baax parce que tamit ci nga mën a indi ay bagages euh, bu dee yeneen kii da di nga indi lu yam noonu teg mais lii nag moom mbooloo la buy dikk. nga ñëw rek dàq sa wërsëg loo am rek nga xam ne loolu la yàlla jox ñu ci gis suñu bopp bu baax a baax parce que Tiwaawoon tamit dëkk boo xamante ne la macha allah am na ginnaaw te daanaka dëkk sëriñ la dëgg yàlla dox na moom. gàmmu gi comme yeneen xew-xew diine yi am Sénégal bari na lool lu mu indi ci wàllum koom ak ci secteur bu mu mënti doon ca marché bu tas ca Tiwaawoon njaay mi mu ngi dox bu baax. jërëjëf ma daal bari àddu ba tey ci wàllum njënd mi ak ñaay mi rawatina nag lu wër jumaa ju mag jile jàppale na nag jaaykat ci bari na moo xam ni jaay kurus si jaay itam abonné carré yi ba ci sax si jaadu jullikaay yi ak ñi nga xam ne ñoo jaay ñam yu sew yi ñoom nag nee nañu ñu nga gis seen bopp bu baax a baax ci liggéey wile ndax jamonoy gàmm mu daanaka dañuy faral di jaay te loolee nag mbégte mu rëy lañ ci àndal dañuy teelu reportage Bawo Diallo ci mbedd Tivaouane yi ay bus ay ay taxi ak i particulier ñoo fi gën a fës waaye tamit leneen li ñu nemmeeku mooy njaayantu yi nga xam ne ñu ngi koy amal ci mbedd mi fii nag xumb na loolu ci diggante jaaykat jëndkat ak ñiy ñëw ay marchandises yu ci mel ni sijaada kurus wala sax mbaxana jar na bu baax a baax ndax ñi koy jaay léeg lekk ñu am bénéfice su juróom benn junni. sijaadu yi daal moom mooy gën a dox quoi man lu ñuy parce que bu ñu xëyee sijaay sijaay yi la ñuy gën di jaay ba jant bi soo chaque jour moom mën naa si jaay lu mat ay 40 sijaada wala 50 sijaada ko ndànk ndànk rek dañuy fortaatu rek mën nga dox lu sori jaay benn client wala nga taxaw lu yàgg door a jaay benn client comme noonu lay doxee daal. yenn commerçant yi ñu sekkal waxtaan ñoom njënd mi demeewul noonu muy jaay ay écouteurs chargeur ak yeneen mbir jëm ci téléphone sëñ bi moom ci la bokk. man nag eh, ay écouteurs lay jaay eh, chargeur mais lu ci lu ci gën a dox nag moom ci gàmm bi eh, écouteur lay doon. surtout ñu bu dee ba gàmm bi commencé dañuy dem fële euh, course ba ñu bëri waxtaan bi dañ koy bëgg a diglu si rajo bi moo tax écouteur mooy gën a dox mooy instant bi ne dañu nekk di wër ci kër yi pour mën a jaay chargeur yi power bank yi sans réunion tamit lañu nemmee am na ne dina jeexal lépp laataa gàmmu xaal yi am na sànda am na yu jot 2000 am na yu am na yu jar 500 am na moom mi ngi tanare tuuti waaye balaa gën a dox nañ moom ñu ni bisu gàmmu ga suuru gàmmu ga daal am dañ ñu dañ koy ay jaay moom fi ne dëgër na trop dëkk bi amul jaaykat bi moom jóge dakaar ngir ñëw ci gàmmu gi moom itam am na yaqin ne dina jeexal marchandise am. te bu ñu jëndee dañu ko yóbbu sëri jeex waaw nu di leen ñaanal rek ñu dikk ak jàmm ñibbee jàmm. waaw waaw gi day jeex rek lañuy ñuy mën a jënd. ay waxtu yu néew dees ñu màggal gàmm gi jënd meeg njaay mi mu ngi dox ci ñenn ñi jamono ci nga xam ne ñi ca des ñoom ñu ngi xaarandi. mbokk yi fi lay njaare buñ jotaayu xibaar yi jaajëfal leen bu baax ci teewlu bi ànd ak 7TV jaajëfal itam ñi ci jàpp ba mu yemb di ñaanal askanu sunu gaal gàmmuk jàmm ci dëkk Seydi Hadji Malick Sy bi jaa ngeen

المختار في القدم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدا المختار في القدم